di ziar taalibe yëpp te di am mbégte mu rëy pour yàlla dimbali nu ñëw fekk bés bi ndax bés bi gëm nañ ni bésu xéewal la mag ñi doon nañ wax ni sëñ Abdou Khadre ba mu ganee àddina sëriñ tubaa dafa wax ki ko xëy si yëgal ko communiqué fii nga ma jóge si man ban fa nga àgg fa nga jëm koo dajal yàlla dana ko yóbbu àjjana yi gën a kawe kon ñun gëm nañ ni bés bi bésu yiw la bésu xéewal la sëñ Abdou Khadre nag moom nit ñi ñëpp a ko sopp ndax ñu sopp ko ndax soo ko gisee rek na xam ni ki yàlla kese moo nekk si moom nit ku dëggu la woon nit ku sopplu la woon ndax gëm yàlla gi ba pare delloo boppam yàlla ba mu mat sëkk